mbokk yi asalaamaaleykum dootu leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM yegg ak yéen ci penco waxtaan bi ñu fas yéene ko tàmbale ci 88 628 14 14 wala 14 15 bu dee am na kenn ku nekk ci ligne bi Abdou Thiam asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw kay ba. bisimilah. waaw kay cher Seydou. Hmm. xaadimul Quran. Hmm. li may wax mooy am dañ fi commencé woon maanaa di demande ab université. Hmm. pour wàllu daara ji hmm. léegi nag solo su si nekk hmm. télé bi ma ko defee woon ci at bo at yooya hmm. dama waxoon ne buñ ko defee fekk ñi ngi tuumaal di tudd terrorisme di tudd nangam ak nangam ba ne nag léegi bu fekkee am nañ université ba samp ko fii nga xamante ne bi pour daara ji la dina doon université spéciale ku jàng ci daara ji ba pare mu nga bëgg a dem yokk sa àlluwa mën nga faa dem ñu formé la ni ñu ko doon defee fii ci Sénégal ndax dañ fi doon jàng ba pare ñu lijj lijjanti la ay kayit may la bursu mhm. nga dem Maroc mbaa nga dem Égypte mbaa nga dem Arabie Saoudite mhm. léegi buñ ko seetloo ci dëgg-dëgg ñi demoon Arabie Saoudite du ñëpp mais ñi ñi ñëwoon ku ci yàlla dimbalewut mhm. bi nga ñëwee indi woo xaalis indi woo fi dara mais danga ñëw di wuuteeg ñi fi nekk indi fi xuloo indi fi xeex indi fi lu ne daal maanaam dafay am solo université boobu mu jaamiatun islamiyya lay nekk waaw léegi nga xam ne buñ ko mm. defee mm. dinañ seet li ñuy jàng ñun suñu réew mi réewu réewu tasawuf la mm. mais ki lépp lu ñuy wuti Arabie Saoudi di ko uti Maroc wala di ko uti Égypte mais mën nañ ko sabab lu mu nekk fii ba ku génn ci université bi mën a nekk doktoor mën a nekk euh, ingénieur agronome leneen nekk leneen fekk culture bi dinañ ko sàmm dinañ ko wattu fekk nit du dem ñu dindi yuuram naan yuuram def ci mhm. moom leneen ba bu ñëwee ci réew mi ko dëgg la mhm. lu am solo la léegi nag président président Macky Sall ci boppam mhm. la xam ne ñun ñoo ko fi njëkk ñaan nañ ñu ko ñu ñu ko autorisé te dimbale ñu jox ñu ministère beneen bi bi tomb nag waaw xoolal léegi nag damay def ku nekk deux minutes parce que tamit ñu ñuy wax ñu laaj ñoo bëgg a mu gën a gaaw waaw may ñaawlu li ma dégg ne am na ay taaliba yu yelwaan Mm. wut ma ne yenn waxtu yi taalibe di ko yelwaan lool du dëgg du yoon mm. léegi loolu force gouvernement bi wax ak ñun buy wax ak ñun nag mm. am na ñoo xam ne bu waxee ak ñoom duñ ko jox solution déedéet parce que am na ñoo xam ne duñu waxal daara ji jërëjëf xam association islam boo xam ne du xeexal daara du xeexal miskin wala ku bokk ci kër diine doo xeexal daara doo xeexal miskin moo xam AIS la moo xam lu mu mën a doon la bu ñu ko nangu dëgg la jërëjëf amin amin jërëjëf ay taal bi yelwaan cinq heures du matin moom wax dëgg yàlla moom euh, dañ koy faral di gis dañ koy faral di gis effectivement bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi asalaamaaleykum ñu ngi lay ziar Thierno Seydou Nourou waaw député Moussa Cissé ñu ngi lay ziar bu baax Seydou Nourou maa ngi siyaare waa Cambérène ak euh, seen bis bi macha allah dégg naa li ngeen wax ci pont bi hmm. mais pont bi directeur u Assirou waroon na ay a leeral waa Cambérène ne pont waroon nañ ko indigré depuis deux mille quinze. Hmm. képp koo xam ne nekk nga député ci onzième législative. Hmm. xam nga ne dem nga ak Karim Wade ngeen def ñaari fan hôtel Méridien. Hmm. Karim Wade wax procès yi nga xam ne am na ko yoo xam ne war na koy la ci Sénégal te pont boobu bokk ci mu war na commencé pouvoir. 37 kilomètres yoo xam ne dana romb ci VD ci ci VDN boobu 37 kilomètres yoo xam ne dana romb ci waa woon pël. financement yi ak lépp bouclé. procès bi war Mm-hmm. tardé nañu juróom ñetti at démb lañ koy door a indi. Mm-hmm. démb lañ koy door a indi te pareegut. Mm-hmm. loolu directeur ASUR waroon na koy leeral. dégg naa ki génn léegi wax ci affaire affaire université arabe bi. Seydou Nourou maa ñaar booy jëmee Kaolack booy dem Kabatoki. ci sa droite. da nga fa gis benn lycée boo xam ne lycée arabe la. boo xam ne xale yëpp a war na jaay foofu la war na génnee pour jàng arabe. ñun ñun waa assemblée nationale dem nañu visité ji ko am na sax internat yoo xam ne dañu dañu jàng foofu alxuraan ak ak ak mhm. hadis mhm. da ko fa jàng ba am bac suñ bac yi amee bac doo ko dem ci université boobu kooku di wax léegi mhm. loolu yëpp ay projet Abdoulaye Wade la waaye malheureusement lu ñuy wax ne état continuité la Macky Sall lépp loo xam ne projet la woon xam ne Abdoulaye ko tegoon bi mu ñëwee def koo tëral te loolu ay exemple la rek yu ma leen jox ci ci li ma leen wax nii. waaye nag bi nag am na solo bii moom war na am solo moom wax dëgg yàlla. wallaay wallaay booy dem kaw la man li ma lay wax booy génn capital. tamit ñu bëri dañoo nekk fii am seen bac en arabe. bu ñu amul bourse jàng biti réew. ils sont tamit euh, waaw. xale yi dàqa jàng dañ leen internet am na ay néega nga ay classe ak lépp nga fa lool mën a jàng lool sax. wallaay mën a a jàng lool. jóge fa dem université loolu ñun ñun assemblée dem nañ fi visité ji visité ji visité ji lycée boobu mu ngi mu ngi mu ngi ba léegi Macky Sall nangu ko ubbi. mu ngoog c'est important jërëjëf jërëjëf euh, kaddu gàngoog euh, ci askan wi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. El Hadj Seydou Nour. waaw. ñu ngi lay baax delloo ziar bu baax. di ziare ci machine bi. mu ngi nii ak gàttaay bi. ak <laughs> jërëjëf. di ziare équipe bu RFM Matin gi yëpp nag. merci beaucoup. ndax ñun wax di yàlla suñu xol ak suñu xalaat yëpp. bu mm. féete média la. jërëjëf ñoo ko bokk. yàlla xam na ko ñun dañ leen bëgg rek te yàlla tax. ñoo leen ñoo leen raw. ñu ziare sama directeur El Hadj Assane ñëpp daal mm. ak Bouba ak Ndiaga ak mboolem daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm. jërëjëf. El Hadj Seydou Nour. ah man la ma doon wax rek laay wax mooy li jëm ci wàllu engrais bi daal. Mhm. mooy xam naa ni daal bëkk démb am na bata bu jàpp ñoo xam ne dañ ci doon luwal mm. bu leen bàyyi noonu mu sedd mm-hmm. parce que ñun ñu xam ma fii ak ñaay di bàyyi Seydou Nourou mm-hmm. damay continuer di ko waxaat yàlla xam na ni fi ne su ma coupé ñëpp daf may woo li ma waxal parce que engrais bi seer na mm-hmm. bi def mooy marché bi nga xam ne mooy marché noota guy jamaa ñu fa jaaye soble bi fi ne soble bi am na waaye wax dëgg yàlla piri bi xaw naa wàcc jënde jëndee kilo engrais six cent sept cent te mënoo jaay kilo soble deux cent Seydou Nourou métt na xam nga yàlla dogal na Seydou Nourou ñun wax na lu ñu dem gaal. lu mm-hmm. dem ci leneen mm-hmm. ñàkk dund rek lañ xam du xamuñu dara lu ñàkk dundee. Mm-hmm. kon ñun ku ñu jàppal état nag état lañ koy dañ koy jox ndax wax dëgg yàlla ñun dañoo ànd ak moom mu ànd ak ñun. kon ñu ngi koy tàllal loxo bu baax a baax lu jëm ci wàllu engrais bi. jërëjëf Seydou Nourou. ginnaaw booba dañu bañ a guddal nag. waaye ñu ñaan ñu ñaan euh, yàlla dogal Macky Sall suñu yoon yi ay ngir yàlla yoonante bi man ci côté mbay yoon mi laay wax. parce que hmm. boo béyee pare amoo yoon yooyu jaar. waaw ah, kër Siili kër hmm. hmm. yoon la yoo xamante ay piste la yoo ne bu génn fas boo jënd balaa am ñaari dee. waaw. Ah, ñu ci tàllal loxo mu jàpp na ci Moussa la xamante ni depuis Macky Sall sant ba teg moo fi nekk yàlla dëgg mu nekk maire. am noo xam maire mënu ko ci ay moyenam. jërëjëf ñu ngi sant di gërëm waa rajo. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup di nuyu waa dëkk bi yëpp Abdou Thiam Bouré am na keneen ku nekkat ci ligne bi rek ñu xaw a gën a gàttal ndax tamit ñu nekk ci ligne bi bari lool salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar. Seydou allah. alhamdulilah. bisimilah. ñu ngi lay sant yàlla di sant ñëpp. Mm-hmm. dëkk fooy wootee. man maa ngi woote Thiès. maa ngi waaye bisimilah. ñu ngi dëkk côté ma côté côté Jolof yooyu. Mm-hmm. ñun ne dafa am ñu fa nekk daa mel ne Macky leen mere. Mm-hmm. sama gis-gis. Mm-hmm. muy Vélingara Jolof. Jegeli utal am na ñoo xam ne dëkk foofu. Uh-huh. ndax boo xoolee ñeenti dëkk yu toll noonu tey Sénégal amoo man jóge naa li uh, kii dugg bu ba Dakar. doge naa Tamba ba Madina Ndiaye gisuma dëkk bu ba tey amul mm. courant man loolu sax ba tey def mm. man def maa yem doge naa côté Juné mm-hmm. bu toll noonu bu amul courant comme udan laay jegali mm. naakara Vélingara soo mm-hmm. mm-hmm. man man man man man seet noonu def maa jaaxal xaw ma da leen mer xaw ma lan la xam naa dafa yegg seegul rek ah man xam naa dafa yegg seegul rek wala soo xamoon dëkk yi nu tolloo tey tey nga gis yeneen dëkkaan yi am lépp sax ci wetu goudron bi. doy na war. Mhm. man fi ma dëkk ak ak goudron cinq kilomètres la. waxaatal dëkk yi comme ça ma may la nga waxaat euh, mu ngi département département Linguère. Mhm. commune de Barkédji. Mhm. Vélingara Ngara mu ngi ci commune de. Euh, département euh, département Matam. ci commune de Ranérou. Koudal laay tamit ci commune de Ranérou la bokk ba tey. naakar tamit ci ci ci raneeru la bokk mu ngoog mu ngoog waaye yàlla xam ne sayid nut mm-hmm. ñeenti dëkk yi ma li mel nii bis mm-hmm. jóge na uh, Matam ba Dakar jóge naa fara fara génne naa Sénégal yàlla baax na ñàkkul ne ñàkkul ne kilifa yi ñu ngi leen a bu baax baax ñàkkul ne ñu ngi koy dégg bu baax a baax yooyu dëkk nga lim yoo xam ne vraiment dañoo soxla yenn yi uh, rawatina courant incha xam nga tey sayid nut njàng tey loolu loolu ko yor waaw lay courant waaw xale yi mun mun jàng mun. jë bu dee tere ngay jàng du am leen doo gis amoo ordinateur amoo dara. mooy hmm, jàngee jërëjëf jërëjëf. ngay développement nga bëgg. du hmm, mën a am. doy na waar doy na waar nañu jàppale nañu jàppale ngir yàlla. nañu jàppale waa dëkk bi yëpp Abdou bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne salaam. Seydou Nourou. ñu ngi lay maa ngi lay nuyu di la ziar di la baal wax di. di ñaan wax dëgg yàlla eh, laayeen ni li ñaan fale si dakaar amiin waay yàlla nangul leen ñaan bi quoi. amiin amiin amiin Umar. waaw Seydou comme li ñu di waxee waa ji ni ñu woon man la Umar Sow. waaw dëgg na la. Hmm. voilà man de comme waa ji mu wax nii ñun tamit fii problème boobu la ñu am fii si Fuladu. Hmm. Seydou Nourou y' yaa une route la am na benn yoon boo xam ne mooy dem frontière presque mun naa la wax euh, Kolda ak bi Bissau. Hmm. mooy la route de Salikégné. Seydou Nourou tali bi yoon bi mu ngi romb ñetti commune la boo génnee Kolda Dioulacolon ngay jaar. nga dem Giré Yoro Bokar le professeur Moussa Baldé commune bu mu dëkk ak euh, la commune de Salikégné foofu mooy frontière Seydou Nour 42 kilomètres. Hmm. bu Sénégal amee indépendant ba léegi laala ñu ngi koy jàmbat di ko jooy pour ñu defal ko tali bu tali bu ñuul. Hmm. ba léegi mënuñu ko am. te tali boobu billaay Seydou Nour lu mu fi génne ay euh, ay euh, lu nekk si si biir dëkk yi laa la wax. Hmm. vraiment maa ngi ñaan vraiment le ministre des infrastructures ak le directeur de l'AGEROUTE. xam nga ne Sénégal yëmbul Dakar kese. nañu gëstu vraiment àll bi Seydou Nourou mhm. Seydou Nourou àll bi Sénégal ci la bokk àll bi que Sénégal eh, àll bi Sénégal la bokk eh, ma ñëw si biir hôpital régional Kolda encore que la fois passée waxoon naa. mu gën que léegi a mhm. ngi ñaan vraiment les autorités d' abord yi fii si Kolda au niveau de conseil départemental ak le maire de la commune de Kolda El Hadj Mame nañu taxaw vraiment hôpital régional de Kolda hôpital régional Kolda Sidy Ndour mu ngi sukuraat. Mhm. sonn na ba sonn yem laa nañ jàppale vraiment si scanner bi. Mhm. nañ jàppale scanner ak spécialiste la santé na affecté fii ay nit ay spécialistes hmm. kontaan Sénégal la bokk Seydou Nourou maa ngi la gërëm ba sax di la di la ñaan defal la jàmm jërëjëf merci beaucoup di nuyu uh, waa Kolda yow bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi asalaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam aha Ousmane Dem Port-Gentil Gabon ana waa port ñu ngi jàmm alhamdulilah macha allah ay bisimilah ma Seydou Nourou waa Fouta yëpp ñu lay gërëm chaque ajuma dañ sant bu baax a baax jërëjëf waaw sama Thierno Racine kooku muy Mbouma yow rek la yéen rek lay déglu. Thierno Racine Dia nag sama nijaay la mu wax dëgg yàlla ndeysaan ak ki gaañu. kaw Thierno am na sama benn xarit taalibe mu Madina mu mu ngi doon wax say mbir sax ak sa papa nu mu fa nekkee woon. wallaay fa la yoroo Madina Ndiaye bi ak Thierno Hamdara bi Ndiaye ndeysaan bisimilah. wallaay du caaxaan. wallaay bisimilah. Ah, ndeysaan macha allah Seydou Nour. Hmm. man damay dellu ginnaaw tuuti li xewoon géejuwaay. Hmm. Seydou Nour imagine buñ doon voté liste liste bi géejuwaay. Hmm. imagine li ay Aïdara defoon su fekkoon Aliou Sall moo ko defoon du xam nga coow yi mooy coow li mooy gën a bëri. est que tamit du ñu xaw a waaw waaw waaw waaw demal demal demal demal. waaw waaw euh, coow lu moo coow li moo moo moo doon gën a bëri. parce que ñëpp dañ cee maandu. Hmm. après si ginnaaw gi ñuy dégg ñu ne rakku président bu du exact rek rakku président rakku président. nañ ne hmm. Aliou Sall ci réew mi la dëkk. mais comme mais comme mais comme wat nañu bu mu jeex rek nañu baax ci leneen moo gën. waaw n'est-ce pas amul problème. voilà ñu ñu bàyyi ko waaye dafa dafa may métti trop. waaw waaw nañu wax journaliste yi nu ñuy traité. waaye waaw comme jàmm am na léegi rek ay analyse politique yi demee noonu. waaw analyse politique tamit boo koy def Seydou Nour wala journaliste yow journaliste nga. da ngaa ne da ngaa da ngaa indépendance. Hmm. normalement waroo. waroo waroo wane sa féetee trop. ci ci ci ci xaram nit. warul non non non fii nag fii nag fii nag fii nag ah, wax dëgg yàlla. na waaw loolu waaw waxal ci leer rek bu dee am na problème booy wax. li koy man loolu ñoom laay wax wala analyse politique. waaw yow analyse politique nga. yow hmm. da ngay analyse politique waaye yow si benn côté ngay nekk di xarab di xarab di xarab. du hmm. noonu. waaw man daal pare saa ay analyse yu su may déglu pare saa ay analyse yooyu. Hmm. wallaay du ma xam sax man li may déglu lii lan la. du noonu. parce que booy eh, boo boo invité nit ki tamit da ngay bàyyi nit ki wax li mu bëgg wax. waaye. ji bu féetee nii lu ma la wax arrangé wu nga dagg ko. Hmm. man daal parrainage journaliste Sénégal yi parrainage daf dañ may jaaxal trop. ñëpp yemuñu la waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam di nuyu waa Porochanté yëpp. bu dem keneen ku nekkaat ci ligne jël ko salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Alaaji Sëñ Nooru. waaw. Ibra Ndiaye Pikine moo leen di nuyu. ana waa Pikine Gaaw Raay. ñu ngi fi sant yàlla di jël salaam. yàlla na sant yàgg bisimilah. Cheikh Mouhamed Rafañ Mbacke. macha allah ñaan jàmm ko ñaanal Sénégal yëpp. jërëjëf Faye bisimilah. li may njëkkee rek mooy li kilifa gi njëkk a wax léegi. Mhm. ñun julli nañ góorgóorlu ci alxuraan. Mhm. di ko jàng di ko jàngal te ñaan yu dimbali ñuy jàng alxuraan ak ñi koy jàngalee. Mhm. rawatina daaray kokki. mooy lépp de alxuraan meloo suñu borom. mooy lépp de moo dëgg yàlla góorgóorlu ndax mooy suñu lépp wax dëgg benn bi ci des uh, sang bi. joboot jàmm ñu ko coow mm-hmm. li fi amoon daaw bu fukki bakkan ak ñeent wadd mm-hmm. ay waay buñ ko yëngal buñ ko yëngalaat mm-hmm. su fekkee mun ñu ko ba ñàkk yëngal nañ seet ñuy dee lu leen rey ak nan lañuy indee mu ci seen bokk ak nu leen di masa woo ndax kat alaaji ibrahima sax nga ca dëgg maa ngi ci fen danaa ko fekki nee woon na sàcc bi jaar ci penc mi ndi ko yuxu naan wub sàcce wub sàcce maa ngi ne ci penc am na ko lam def ci dëkk bi ci guddi gi bu ko yàlla weeroon te ñu fàtte sàcc ba coow yooyu maanaam léeg-léeg sax nga jàpp sàcc nga suturaal ko billaahi te yàlla daa bëgg sutura <laughs> ndax loo def yàlla xam na ko kon may ñaan ngir yàlla coow li ne ci kilifa yi dinañ jóg hmm. ñu bàyyi ba taal ci dëkk bi coow na ne kurate maa ngi ñaan a yoon wi bàyyi ko Louga jëm daar ñu ko defar ba mu baax ak tali bi jógee hmm. caameen jaar gaanaaw la jëm Touba hmm. bëgg na ñu nañu ko goudron bu ñu kukk jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf wax ji rek gàtt na macha allah nii lii da laa bëgg nu mu gën a gàtt rek asalaamaaleykum waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw sama sëriñ Seydou Nourou honorable député de Serigne Mor Niang Mbacké Bari la ana waa Mbacké Bari waaw ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp di ñaan réew mi rek yàlla dafa ñu jàmm yàlla dolli jàmm ci àddina bi amiin ñu bokkul la bisimilah ñu nag région de Louga bi war yoon nga euh, seen correspondant bi nekk pour mu génn ñëw xoolal ñu tali yi nekk biir Louga rek hmm. maire bi sax def na constat bi wax na ne mandat bi moom ci la ko ci la ci fas yéene jublu yàlla li mbay la woon hôpital yi ji li mbay la woon beneen bi ci des jumaa yi jiili mbay la jàkk yi jiili mbay la mais ci am na ko ko wax léegi gis nga Louga Linguère boobu may kaas fan yi yëpp hmm. yàgg naa koo wax ci sa émission bi nii hmm. loolu moo na solo am na ko nekk woote ba ba Linguère moom laa la wax région de bi xam nga Linguère ci Louga la bokk hmm. loolu moo ñu rey nun dañoo amutum nawet ba pare nawet ba pare ay jafe-jafe rek la ñuy dund noor waxoon naa la fii ba fa nekk da ngay a taal oto bi a xanaa loolu taxaw seetlu beneen bi daf may terminer Touba Mbacke Gale. Hmm. Seydou Nourou. Hmm. vote bi gars yi voté nii feeñ na ci ne nii fi sëriñ bi teg kontaanuñ ci. Hmm. nii ñi dañoo échec. sëriñ bi dañoo war na woon ne démissionné leen tekki leen seen doom ba tànk parce que onze mille voix ak trente neuf mille voix écart. yow Seydou Nourou Ba ak ndox mu bon mi ñu dundee ndox moo xam ne inondation baa nga biir Touba Mbacké hmm. ba léegi may wax yow ni ndox ma ñu naan ndox mu xatu xorom lañ hmm. gis nañ ne ma màggalu Kazu bi ndox ma fa nekk nii taalibe dañoo dem di jënd ay ndox euh, fële ci yoonu Mbacké loolu dafa nga rafet na hmm. forage dong mënuñu ko defar léegi daanaka euh, maire Mbacké bi maire Mbacke bi ak maire tubaa bi boo xoolee eh, Touba ca kanam sax nangu na ko léegi. Mm. léegi ku am problème duutoo woo maire ba duutoo woo dara Touba ca kanam ngay woo. Mm-hmm. mais est-ce que loolu jaar na. Ah, nekk fa. doy na waar doy na waar. xoolal li ma la wax rek Touba ca mm-hmm. rek la ñuy woo léegi. na waar ñoom ñooy installé courant ñoo dugg robinet yi ci biir gox goxaan yi ana mm-hmm. maire ba. doy na waar doy na waar. te maire bi di institution mag a mag ay milliards dafa génn. ay milliards mooy génn ci maire Touba Mbacke bi. yëpp mais ay milliards mooy génn mais askan wi dañ cee dundul dara dara dara may laaj xaalis bi président Macky Sall jox. Hmm. pour ñu defar assainissement Touba kan la ko jox. Hmm. laaj boobu nañ ma ci dimbale soo amee ci tontu kañ la Macky nga xam ne. moom lay war déroulé Touba Mbacké. jërëjëf kaddu gi jërëjëf jërëjëf jërëjëf di nuyu waa Bari Abdou bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. mu ngi delloo ziar euh, Seydou Nourou. jërëjëf kooku. man la Modou Thiam di woote Aan. ana waa Aan. ñëpp a ngi si jàmm. aywa bisimilah. waaw Seydou Nourou man dama bëggoon euh, attirer encore attention autorité euh, euh, transport yi ak autorité yi ci Sénégal yëpp. Mm-hmm. ci pont bi nga xam ne moo nekk fële ci VDN 3 bi. Mm-hmm. boo xoolee mooy ci wetu base bu BRT bi rond point bi nekk foofu. Mhm. xam nga tali bi ak euh, ni ñu ubbee tey. Euh, mhm. pont wu Cambérène bi. Mhm. ñu bëri dañuy euh, empressé wu di dem di di jëli VDN bi. mais chaque jour que Dieu fait parce que man yoon boobu laay jaar tous les jours pour venir au travail. mais rond boobu saa yoo fa jaaree di nga fekk benn oto bu bu ko mbëkk ba yéeg ci kaw. donc vraiment dama ko bàyyi ci xel bu baax muñ ba sonn mënatuma mhm. ko muñ ma ne tey moom dinaa dinaa woote mhm. appel bi yàgg naa ci ligne bi sax mais je di disais jar na ko ko quoi justement mooy mhm. rond point bi xaw ma ndax xam nga exactement fi may wax boo jogee fan da ngay jël boo jëlee VDN 3 bi ba si base BRT bi mooy ci wetu géej bi noonu wetu géej bi je pense mooy sorti bi dem vers euh, vers Gàddaay. Ah, d' accord loolu effectivement xam naa fi nga foofu euh, travaux yi sax fa la nekkoon travaux yi. voilà travaux BRT foofu ah. mais rond point boobu dina jeexal oto yi ci Sénégal. Ah. chaque jour ba instant bi ma lay wax ni yaa benn taxi bu fa nekk. sama tey rek ma ngi ci kaw boo yéegi di ko fekk ba ci kaw mu mbëkk ko oto bi yàqu complètement donc tous les jours nga gis loolu. man ñàkkul ne Serge Diatta sax sànq euh, jot na fi addu du ñàkk mu ngi lay dégg ngir ñu bàyyi ci xel. lu ko mooy tamit ñu woo ko rek wax ko ko incha allah. oto yi dinañ jeex oto yi Sénégal. parce que mm. da ngay dégg na VDN bi neex na rek. Mm-hmm. nga jël ko te te te li lay surprendre mooy. Mm. route bi dafa continuer mais arrivé là-bas. c'est pas mm. wala dara léegi da ngay jékki rek. benn rome point tressé wu devant toi. Mm-hmm. donc doo ko mën a contourner boo koy gis fekk egsi nga ci ba pare. c'est important c'est important ay 4x4 façon oto koy fekk ci. c'est important vraiment dama ko muñ muñ mënatuma ko muñ. baax na ci. Euh, pour ñu gën a parfaire yëf yi c'est important aussi sauver tamit ay bakkan on sait merci beaucoup di remercier El Hadj Assane Gueye jërëjëf jërëjëf yow sa woote bi am na solo macha allah bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ab asalaamaaleykum. Seydou Loro. ñu ngi lay Modou Gueye borom bépp rëy maa lay ziar. waaw waaw baal naa la lu ma la ko dara yow. di ñëwaat. waaw mooy matt bi de. waa ca bisimilah taxaw na. xam ndax biir bi dafa reyam de. Abdou Thiaba ngi rey baax na bisimilah. bisimilah. <laughs> Euh, kii Seydou. waaw. maanaam état bi. Hmm. dañuy dimbali si dund bi. Hmm. buñ ne yokk nañ ko wala wàññi nañ ko. Hmm. ñoom ñu indi lu confirmé ne gars yi wàññi nañ ko. te dafa am bor boo xam ne boo ko bëggee sukkandiku da ngay indil ñu ñi problème ndax te li nga xam ne ñooy jënd si biti bi. ñoom dañuy jàpp ne borom bitig yi ñoom ñooy jël affaire yi bu ñu ko wàññee bu ko wàññee fekk am na borom bitig yi ay grossistes yoo xam ñoom ñoo leen di jaay mm. ñooñu sa kaw état mm. a ñaar seen loxo ñoom ñu bi mm. xam ñoo xam ne mën nañ jënd ceeb même bu ñu ko doon yokk ci ba dix ans ñoom faalewuñ loolu xamuñ ne saako ceeb rek jox la nga ne temps la ñuy dem jëmbal mais am na koo xam ñëw di doole la mënul kooku mhm. dañ koy sóoraale bu baax a baax ci li ñuy def bu ñu nee wàññi nañ nangam moom bu demee day jàpp ne wàññi nañ ko dem si borom bitig bi bu demee mhm. fekk am na ñoo xam sax dañuy jënd stock nii état ne wàññi na ñoom ñu wàññi ñooñu ay jullit lañ mais am na ñoo xam ne dama yàlla baal da nga dañ naan sama stock bu ma jëndoon tànk jeexul du ma wàññi loolu mhm. mais yooyu noonu baaxul te bu ñu nee yokkal tey nga yokk tey suba bu ñu nee la wàññi doo wàññi. Hmm. yooyu yëpp nag ba boo état mu gën ci jëlaat ay mesures gën a wut ñoo xam ne ni ñooy topp loolu. Hmm. di ko xool di laajte borom bitig bu la ko waxee yow nga gérer loolu. Hmm. léegi ñun chauffeurs yi dimanche dañoo am ay chauffeurs defoon accident yoo xam dañ leen di ñaanal. fële sa jam ñaato dafa nañ communiqué bi sa foofu. jërëjëf mais incha allah rabbi ñu fi woo ñëpp rek képp kuy chauffeur mu ñëw foofu ñu ñaanal mooy daw li ñu quoi. jërëjëf Modou merci beaucoup asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Seydou Nourou noo ngi leen di nuyu di leen ziara. ñu ngi lay dellu ziara bu baax. Eh, loolu kooku wax léegi ci tuuba vraiment. Hmm. neexul neexut waaye dëgg la de. Hmm. ah mais boo xam nga nag comme dañu ne sëriñ bi moo moo moo yor mbir mi ñun lu sëriñ bi def rek ànd nañu ci. Hmm. <clears throat> mais programme sëriñ Touba dafa rëy te yaatu. <clears throat> Euh, nga xam ne kon léegi vraiment dañ ko war a jox ñu yelloo loolu parce que. réew mi li ko xaw a sooxeel mm-hmm. mooy bu ñu tegul nit à sa place rek mm-hmm. euh, sooxe am sooxe day am de mm-hmm. yow bu fekkoon ne xamuloo loolu nga liggéey ba toog foofu bu ñu la ko joxee erreur am nga def musiba dëgg la loolu moo tax donc ñoo ngi ñaan daal ñu jël euh, programme bi nga xam ne moom la Serigne Touba rek ci dëkkam bi ñu jox ko ñu ko xam c'est important euh, bi may def jëm ci la fi xewoon daaw te métti réew mépp métit gi nag mu doon ñaari nit rek amul problème ndax loolu problème mu ñaari nit lay doon hmm. mais euh, dafa nekk cas social nekk demande sociale li fi yàq woon bari lool hmm, bari woon na trop hmm. te loolu yàlla bu mu amati Sénégal amiin amiin te la ko waral la ko waral doon lu simple lu nga xam ni nañu ko politiser moo ko indi ma dégg ñuy ñu bari di ci tooñ président Macky Sall waaye njort naa ne bu leeree dana doy waar te mbir mi dana leer ndax it man gone googu dama koy féliciter parce que dañ ko dégluwut fii ci réew mi. Hmm. Euh, kan ci bu doon Europe wala Amérique. kan ci kan ngay wax. moom Adji Raby Sarr. Hmm. dafa mel ne ndeysaan dafa amuti mbokk. Hmm. te du am nay mbokk daa néew doole dong. daa néew doole ndax bu fekkee ne réew. sëriñ bi ñu ndéew doole doole ñu leen réew moom euh, day mujj day waar. te hmm. loolu baaxul ci état. baaxul ci état de dëgg yàlla. te ñun lee défendeurs ñoo ngi ci wetu président Macky Sall waaye bu ñu sañoon mu leer ñu bari ngi ci accusé président nag mais justice dafa am. ñu bàyyi yoon def def liggéeyam rek ah. ah, ah justice dafa am temps donc ñoo ngi félicité Sénégal ñu ñaan yàlla jàmm yokk ci réew mi. amiin jërëjëf euh, defal nu tawféex yooyu daal yàlla ba mu fi amati. jërëjëf. te koo fi def nañ ko jàpp. merci beaucoup. jërëjëf bu dem na keneen ku nekkaat ci ligne salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. maa ngi tudd Adama Dieng di la woowee fii. Adama maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar. alhamdulilah mu ngi ko baab tuuti rek dafa xaw a ndaw. waaw maa damaa naanagul café damaa. ah naanagoo café naana café Touba boog bu baax. <laughs> bisimilah di la ñaanal jàmm di ko sant yow. jërëjëf waay. ñaan sama kàddu gii ma yëkkati yàlla na fekk mboolem ko koy dégg rek ci yàlla. amiin amiin waay. Euh, antenne libre bu ñëwee sunu xel dafay dem ci Kajoor waaye comme tey temps bi dafa gàtt ñaari minutes la sama ñaari sujet yi ma choisir benn bi dafa jëm ci wàllu politique benn bi jëm ci wàllu dund gi nga hmm. xamante ne wàññi nañu hmm. vraiment di ci parce que fii lañ duggeen ci antenne bi hmm. di di bu baax a baax pour ñu wàññi ko parce que ñun dañoo nekk ay porteurs de di jaxasoog nit ñi di xam lan moo xew ci dëkk bi kon lépp loo xamante ni jàpp na ni yitteel na askan bi rek dañuy dugg fii interpeller njiitu réew mi président Macky pour lépp lu ci man ñu def ko parce que nag ñun fi ñu féetee wala ci Kajoor leen yàlla dafa dogal nawet bi dafa naawee dafa sant faal lool waa ji mm-hmm. dëkk yu bëree bëri da nga fay du ñoral dara mm-hmm. kon li ñu mën a dimbalee rek mooy état du Sénégal làmb ci gafakaam subventionné yenn daara de première nécessité yi mënul ñàkk mm-hmm. pour askan bi man cee man cee génn loolu nag su amee vraiment faaw ñu féliciter président Macky Sall

may dañoo war a jël numéro vert boo xam mm-hmm. pour ay sanction mën a am mm-hmm. loolu loolu war a xew beneen point bi may daanale ci wàllu politique ñun mm-hmm. suñu parti au niveau bu Mbacké dafa am problème may l'interpeller le secrétaire général du parti muy président Macky Sall muy lijjanti solution bi parce que Seydou Nourou département dafa am particularité bu yaatu juróomi député ñoo fiy génn jàpp naa Guédiawaye rek la juróomi député yooyu jàpp naa ne mën na ñëw ci compte Benno Bokk Yaakaar mais nag faaw président Macky Sall jël ay responsabilité am hmm. jafe-jafe yi am ci parti bi ci te bañ sa yónni kenn hmm. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup Adama di nuyu waa Touba yëpp Abdou Thiam euh, xam naa foofu ñu ko yemale mu nekkoon penco Seynova euh, euh, jàmm ak salaam tey ak suba incha lépp luñ fay ñaan yàlla na ko yàlla nangu ñu ko yàgg tamit di màggal incha